nga dégloo Abdoul Aziz. Euh, dafa mel ne sa ànd ak président Macky Sall. Mhm. fukki at ak ñaar yi dafa am lu bëri loo xam ne da koo muñ téye ko nga dem ba fenn fi mënatoo ko nga génne ko. waaw euh, sama ànd ak président Macky Sall diiru fukki at ak ñaar am na ñeenti yoon yoo xam ne ni ñetti yoon yoo xam ne maanaam benn yoon ci ñetti at ñeenti at yu ne. Mhm. xam nga loolu bëriwul. Mhm. boo nee ñetti yoon ci fukki at ak ñaar mooy benn yoon ci at bu ne ci ñeenti at yu ne. waaye benn yoon ci ñeent at bu ne nga ni ko président Macky Sall mun la naam ci réunion publique boo xam ne nii moo koy présider di secrétariat exécutif national man Abdoul Aziz jàpp naa ni mën naa gunge sama réew dox seen yónnent ci anam bu weesu fuuf li may def defloo ci parti bi. Mhm. di ma ko defloo ci coalition bi. te pour pourtant soo wax ci kaw ñu dégg la. ma ñëw mu euh, ci parti bi ci coalition bi ak ci état bi ak nation bi. xam nga su ma ko waxee lu mu may wax. Mhm. bu jëlee kaddu danaan Abdoul Aziz di nga wax nit mën na ko dégg man mag man président mag Sall li may bañ mooy nit ñi dem ci média di xas parti bi wala ñuy wala ñuy xas Benno Bokk Yaakaar te mën ko waxee fi ñu ko war a waxee. Mhm. dama ko waxee fi ma ko waroon a waxee. ma def ko ñetti yoon ci diiru fukki at ak ñaar muy euh, euh, ñetti yoon benn yoon ñeenti at yu ne te bu ci nekk d'accord nag man. waaye fa la lépp. te taxul sa situation soppeeku. taxul sama situation soppeeku fan nga gis conseil spécial. Mhm. boo xam ne nii teg na fukki at ak ñaar wurus ci tableau ki nga xam ne nii mooy taataan la taxoon mu ànd ak moom di liggéey te kooku amul avancement diiru fukki at ak ñaar. Mhm. ñëpp avancé nañ ci sama kanam. Mhm. mais defuma ko benn métit parce que dem naa sax ba ni mais man ku ma deful ko. Euh, ministre conseiller sax ma jël parce que ministre conseiller dafa dëppuwul ak lenn ci hiérarchie mhm. ci biir cabinet kooku président mag président bu Abdoulaye Wade moo ko créé woon defale ko ñi nga xam ne dañu gàtt xel ci mhm. gàtt xel mooy ki nga xam ne nii boo ko takk takkalul nombal tànk ci mi du am jàmm mhm. boo bëggee jën jàmmam da koy jox loo xam day jayax jayax honorifique la rek honorifique waaye xëy na am na as lu luñ ciy boole moo tax cabinet président ñetti fonction ñoo fa am da ngay mën a nekk conseil technique wala nga nekk conseil spécial. Mm-hmm. waaw ñaare ñett ñaari titres yooyu sax mën nañ jàpp ni moom mooy titre ci cabinet président de la république mën nga nekk conseil personnel di président ba ci ambassadeur itinérant. Mm-hmm. waaye bu ko weesoo. ministre conseiller mooy mooy ki bëgg ñu woowee ministre. ci mhm. amul portefeuille war a fa ne. man Abdoul Aziz boo ma nee ministre danga may jox portefeuille. Mhm. donc dama jooytu ba tey ca fa ma ko war a jooytoo man am naa yéene ci Sénégal bariwuma xam-xam mais am naa as yitte su ma ko booleeg li ma xam a kës néew. Mhm. teg ko ci diine teg ko ci xam-xam teg ko ci ngor mën naa joyanti. lu joyantuwul lu bëree bëree bari da nga ne ci fukki at yi ak ñaar ñett ba ñeent yoon nga ci wax ak président sàll ci loo xam ne jàpp nga ne mën nga ko indil Sénégal. exactement te amul euh, benn. Euh, amul benn jeexital.